بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة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 والحمد لله بعد كل أحد والحمد لله على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد ومن والاه عدد ما تعلمه من بدء الأمر إلى منتهاه وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ni déglu di nu dégloo fii ci seneweb point ak ci jotaayu lislaam point com noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan sunu borom mawlaana tabaraka wa mu boole nu jéggal seen mbokk oustaz maxtar Sarr moo siwaat di àndaat ak yéen ci seen mission bi di jotaayu lislaam di ñaan sunu borom mawlaana tabaraka wa taala mu may nu lépp loo xam ne ni rotal nañu ko ci jataay bi nopp yi dégg ko xol yi taataan ko sunu borom mawlaana tabaraka wa taala nooyalal nu sunuy cër ba mu jëfee ko te bu nu ko jëfee moom sunu borom mi nga xam ne mooy nangu jëfi aji jëf mu nangul nu ko nu ko nangulee yool bu mu ñu ci bindal fa tabaarakallaahu mu comp ca defaral nu sunu àdduna ba mu jag la ca des mu dencal nu ko ba ëllëg yowmal xiyaamati mu fay nu ko gën jaar fetug fay wa ma dalika ala bi azizin di amaan mbégte kontaante di del siwaat ci jataay bi ànd ak nuyoo ak i ziyaar ak i jéggalu ci auditeur ak auditrice yu jataayu lislaam ay weer yu limu mi ngi nii laata koor gi di dikk ak léegi wala bi koor gi door koor gi weesook léegi ay jafe-jafe nekk ci serveuru Seneweb yi mission yi buñ ko defaree ba noppi fa nu koy dugal am ay téq-téq ba boobu ak léegi ñi ko séq ñi ngi ci di liggéey daa fekk ne mbir mi fañ ko doon denc mooma luñ ko woon seen bopp jafe-jafe yi ca fa nu doon dénkaane fa la jógee mu nekk defukaay boo xam ne bu yàggoon la te jamono dox ba yegg ci foo xam ni yu bari yu yàggoon dañ koy soppi yàggaayu bërëb boobu ñu doon def nag émission yi moo juróon am yenn nit yu duggoon ci biir machine yooyu jël yenn code yi xam ko tàmbali ko publier ci Facebook beeg yeneen i bërëb bi ko kilifa Seneweb bi yëgee te loolu mënoon na yàq loo xam ne defar ko dootul yombati ndax lépp lu nekkoon vidéo wala mu nekkoon ay ojo ci émission yu ñu mës a def yépp mënoon nañoo jaaree foofu supprimer ko loolu moo tax ñu profité ñoom gaaw désactiver serveur bi ngir réserver émission yi ci nekkoon ba keroog yàlla di dogal ñu mën a xool solution yoo xam ni danañ ko mën a indi boobaak léegi nag ñu ngi ci wër solution yi jamono yi di ñëw rek incha allah am nañ ci yaakaar bis bu nekk dañuy bëgg lenn waaye dañuy bëgg def loo xam ne buñ ko defee bu ëllëgee yàqu-yàqu mën na cee jafe loolu moo tax boobu ba léegi euh, Daawuda Mbay salaam faal ñu ñu seqal liggéey bi am ni Moustapha ak ñëpp ñu ngi bëgg a jubluwaat jamono yi ci liggéey bi di jéggalu auditeurs yi lu bari ndax am na ñoo xam ne daanaka mbir yi feebar na leen ni ma ko daan waxee rek dem nañ ba jataayu salaam bokk ci seen dund mel ni dorog ci ñoom bu ñu ko dégluwul am lu leen manqué duñ tëbal mukk bis wala ñaari bis lu dul ay nit yu ñu mosta dégg ci àdduna bi woon ñu laaj ñu fan la liggéey bi toll loolu moo tax jamono yi yépp ñu nekkoon ci ak sunu mbokk euh, nga xam ne boroom pëstéef la borom taxawaay la borom njàmbaar ca la muy Lamine Diack nekk fële ca Japon surtout jotaayu lislaam point com moo ko ubbi ci xaalisam moo ciy def temps di jël émission yi doon ko ci def jéemoon nañu ca ginnaaw ngir def émission di ko dugal waaye envoi bi da doon yàgg ngir mu man cee jot ba ci jamono yii ci ginnaaw lañu wan yoon wi nga xam ne fa la ñuy jaar ngir mën a dugalal émission yi sunu bopp bi nu ko xamee rek ci la ñu profitoo jël mboolem émission yi ñu defoon ci koor gi di aaxiru zaman dugal ko ba mbokk yi bari tabaarakallaahu ñu ngi ko tàmbalee siifur ak émission yi nga xam ne tamit ñu ngi koy def fii ci benn rajo ci dëkk bi ñu jël yooyu tamit tàmbali ko faa dugal fa lilaay alhamdu wa loolu moo sabab nag ñu ne nañu dooraale di jël émission yi di ko dugalaale ci page yi jotaayu lislaam bi incha allahu taala ba nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom la Seneweb di def yemb na yegg na ñu wëyal ko waaye fas yéene nañu tey door ko incha allahu taala di def ay waxtaan muy jàll ci jotaayu lislaam point com di sant mbokk yëpp di gërëm ñëpp ci seen taxawaay góor ak jigéen ñi ci réew meek ñi ci bitim réew sant nañu ñëpp gërëm ñëpp safoo ñëpp ni safoo jataay bi di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu yéwénal sunuy mbir yéwénal seeni mbir ci barki nañ ci àlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli jàmm ci réew mi akuk dal moo tax tey ñi ngi bëgg a waxtaani insécurité ndax xam ngeen ne Sénégal fi mu toll jamono yi euh, rey gi bari na lool yi xew yu metti bari na lool di dal ci kaw réew mi ñu ngi wax léegi rek walla bërki démboog léegi ñu ngi wax la xew ca Ndar di ay mool yu doon nappi seen gaal suux ba ñu ngi wax juróom ñeent ñi ne fukki nit yu ci faatu lu jiitu loolu accident yi am ci yoon yi mel ne yoonu poroxaan ay nit ñu bari faatu ci yooyu ci dogalu sunu borom yi la jotewul ak li ñu bëgg a waxtaane donte ci balaa yi lay dugg ci biir du ci génn lu mel ni tamit ray gu bari gi ñu nemmeeku léegi du ñu jëlal fan lu dul ne fekk lu dul dégg nañ ne fekk nañu nit ku rey ci biir néegam wala ku rey ci mbedd mi wala ñaar ñu doon xeex kenn ka rey moroomam fan dégg nañ ko ci biir Dakar ba meeru Dakar demoon fa lu jiitu loolu ci natt yi fi rot mooy lakkuk daara yi wala lakkuk lakk ga amoon ca Medina. ba am ay ndongo daara yu ci seen bakkan rot loolu nag bi mu amee njiitu réew mi jël ci dogal bi mu ci jël ci laa wax ni lu nu lu nu dal rek nanu bàyyi xel ni tuuti na fekk delluwunu ginnaaw ci dogal bi njiitu réew mi jël muy dogal bu dëng ñun yàlla def nu dimbale dañoo am liberte ci sunu bopp njiitu réew mi génnoon fii bi mu demee ba mbir yi ne këtt ne jonn yéen ñëpp ñu doon déglu jotaay lislaam xam ngeen ne taxaw nañ ci ne doy na ndax dañu dem ba xam ne doy na ñu taxaw ne doy na waxuñ ko ci suñ wàaneexu bàkkan waaye li yenent bi waxoon ne bu ngeen ko gisee taxaw leen yéen ñëpp ngeen dénoncé ko ci lu bon man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika ad'afu al iman bu ngeen gisee lu bon na ngeen ko dénoncé na ngeen ko ak seen loxo su ngeen ko mënul ngeen dinde ko ak seen làmmiñ foofu la ñu tolloon ba jël ngànnaay boobu noonu le jëf ci lañ ci jëf gis ci lañ ci gis ku bees ñëw ñu gunge ko gis ngeen ni ñu ko gungee ci Umar ibn Abdul Aziz wan ko yoon wi nga xam ne nii la jaar wan ko doxalinu Omar pas-pasu Omar njàmbaaruk Omar bàyyi xel gi Omar ibn Abdul Aziz bàyyi woon xel ñi mu jiite woon loolu it ñu def ci liggéey bu yaatu ngir gunge ko ko boobu ba léegi nag ñu ngi ñu ngi toog ñu ngi xool ñu ngi ñaan ñu ngi gunge waaye biñ demee ba gis mu fakkasalu fakkasalu bi mu fakkasalu ci daara yi altine lay wax talaata maa ci njëkk a def émission bu mën a wax ne moo ubbi bunt yu bari ci benn rajo bu tudd fii siiwal FM ci talaata jooju ñépp di dégg ma wax la ma wax te li ma wax bokk na ci mooy la ma doon moytuloo te am ci expérience mooy musiba yi dal fan yi ci kaw Sénégal ndaxit it mënuñoo ñëw fekk lakk gu am natt gu am ay taalibe seen bakkan rot ci journaliste yi wër bind ay xibaar yoo xam ne c'est faux juróom-ñaari taalibe faatu ñu ne juróom-ñeent taalibe la te ñaar ña duñuy taalibe lakk gi keroog Oustaz Aboubacrin Faye ñi ñi seet ñiy déglu mission yu mujj yi ci jotaayu lislaam bi point com bi Oustaz Aboubacrin fay bi ma ko dalalee dégg ngeen li mu wax lakk ga fa mu amee ca Medina juróom-ñeenti néeg a fa nekkoon ñaari néeg la fa taalibe am la ca des nekk ku ñuy néegi taalibe lakk gi tamit néeg ba mu jógee nekkul néegu taalibe ya benn nit ku taaloon sondel ca néegam mu lakk ba lakkaale tapi ba loolu moo sooke lakk gi foofu noonu lakk gi soqee ko ñaar ña fa lañ faatoo soog di law jëm ci yeneen néeg ya fekk taalibe yi jàng nañ ba wàcc noonu la lakk gi demee ñu ñëw jël njiitu réew mi buux ko jox ko xibaar yu dul dëgg mu ñëw taxaw en tant que kilifa gu jiiti réew di jëlee dogal ci mbedd ñu taxaw ne mukk ñoo bañ loolu noonu nga xam ne tamit nag moom la waxoon lépp duñ ci dellusiwaat ndax bari na yaatu na bari na yaatu na liñ ci waxoon bokk na ci lii ñu bëgg waxtaan waxtaanee muy insécurité bii am bu ñu laalee daara gëmoon naa ne lii dana am ndax waxtu wuñ ko mosee def journaliste yi mos def ci jamono yu vacances yi ñëw danañu bind yi danañu bindulu ay information ci daara yoo xam ne c'est faux ci ay sëriñu daara yu ñu jiiñ ak viol sëriñu daara yu ñu jiiñ àgg ci seeni ndongook yeneen ak yeneen ngir bëgg a tilimal xelu waajur yi ba duñ ñemee jël seen doom yóbbu leen ñu jàngi alquran ma gis ne waxtu wuñ ko defee duñ mat duñ tëbal weer lu dul musiba yi tàmbali naa wàcc ba tax bi mbir yi jógee njiitu réew mi jóg wax danañ jël dogal daara yi nekkul ci normu ñu tëj leen jël seeni ndongo delloo jël ñi yóbbu centre gindi ci laa ne ay tappale la ndax mënoo jël xale bu doon jàng alxuraan yóbbu ko ci ci centre gindi te ma tuddee ko ci émission yële centre réeralaate ndax centre réeralaate mooy centre bu ñu jël jàngee alxuraan. mënoo fekk xale bu doon jàng alxuraan nga jëlee ko ci fa mu doon jàngee alxuraan yóbbuwoo ko feneen foo xam ne nangu nga ne nañuy jàngalee baax na nga yóbbu xale bi ci ay centre yoo xam ne la mu fay nekkee futbal ak jàngum tubaab nga ne da koy gindi danga koy réeral yooyu mu nekk point bu leer ci xeex daara. ma ne ah jug jot na ci laa leen attaqué ñoom gouvernement bi ak ñëpp ñu ñu àndal ñu ànd ak ñoom ci mbiri ma ne leen seen gàcce la seen gàcce la ndax ñoo sàgganee ñenn ci réew mi ba ñuy dëkk ci néeg yu mel noonu ba lakk di leen alawtiku li ñu defal école bi bu ñu tabaxaloon alxuraan ay immeuble tabaxal alquran ay étage tabaxal alquran kër yu baax kon kenn du fa dugg ba lakk gu mel ni man la faa fekk dogal yàlla sax bu ñëwee kenn mënu ci dara keroog bi jëlee dogal bi nag ci la musiba yi tàmbalee wàcc première musiba gi njëkk a dal ci suñ kaw gannaaw bi jëlee dogalu tere euh, yalwaan tàmbali woon a appliquer dogal bi ba préfet benn préfet bu nekk fii géejawaay bu jigéen dem benn daara évacuer xale ya fa nekk ngir ne immeuble ba ñu dëkk wóorul pour xale ya nekk fa sëriñ daara bi alerté nañ ko ba mu jëloon biisam di di yóbbu ay ndongam feneen ñu fekk ko fa ne day daw jël xale yóbbu jàpp sëriñu daara bi pour enquête xale yi fan lañ leen yóbbu ci beneen centre jële leen ci daara yóbbu leen benn centre bu nekk Médina Gounass bi nu defee loolu ca àjjuma ja préfet bi jëlee dogal bi ca àjjuma jooju la yàlla ne kaay ma wan leen sama bopp immeuble bi ngeen ne wóorul ba jëlee fi sama sama sama sama kuutaay yi ci kaw suuf sama kuutaay yi ci kaw suuf sama ñoñ yi ci kaw suuf muy ahlul quraan ahlul quraan hum ahlullahi fi lard ñiy jàng alquraan ñooy yàlla bu fekkoon mën nañ koo tudd ñeme ko tudd ci langage bi ñuy waxee nun dañ naan mooy ñooy copain yàlla ci kaw suuf jànkatu alquraan yi ñooy ahlullah yàlla na leen kaay ma won leen sama bopp immeuble bi ngeen ne wóorul fi koy bàyyi dem daaneel ji immeuble bu bees sàq rey ci ay nit ngeen xam ne sama dogal tënkuwul ci immeuble bu màggat ak bu màggatul. am benn immeuble bu daanu ca àjjuma jañ évacuer xale ya yàlla daaneel immeuble bu bees tàq wakaam ñaari nit dee ci gouvernement bi dajewaat fa. ba ma defaati émission man leen preuve gi te nag lii moom mooy continuer bu ñu delluwul ginnaaw waaye yàlla baaxe na ki jiite réew mi ci laa gëmee ne am na am na am na. Euh, am na yaakaar ba tey yaakaar des na ba tey mooy bi mu delloo ginnaaw yenn saay-saay yi tàmbali naan waaw dañ ko xupp ak nangam man leen da ngeen a yëgul li xew wax naa ko publiquement ma ne leen mën nañoo déstabiliser réew mi mën nañ ko ñun ndongo daara yi te duñu wàcc ci mbedd yi di marche duñu toji kaar duñu baare tali mais mën nañoo déstabiliser état bi te taalibe yi tàmbali guñ tàmbali woon a jugal seen bopp zeral seen bopp affaire yi nee naa këno yëñ joota dóor mooy lii di tàkk te loolu ku ko weddi da nga xamul waaye njiitu réew mi jël dogal bi ba noppi delluwaat si ginnaaw immédiatement yëg na moom li xew xam na itamit li xew dañ ko ruuxoon waxuñ ko réalité yi mu jël dogal waaye bi mu demee ba xam réalité yi ci la taxaw ndax moom ci boppam euh, seizième bële mu toog ndongo daaree ñoo ko ko téeloon ba léegi sax mën naa ne ñoo ko ko téyeloon te am naa ciy preuve xam nga fee mu toog ne bari pexe taxul mu toog fa bari pexe taxul mu toog fa am na fu gaa yi jaar gaa yi fañ jaaroon nag ba mu toog ci sees ba mën nañu fa jaaraan mu wàcc fa ci nii wala ca te kenn du leen dégg nag te kenn du leen dégg su ko defee boo defalul dara defalagoo dara daara bëgg na da ngay organiser daara du dem taalibe yi yalwaa na leen jég ay moderniser daara ay tappale la maa ngi koy wax tey tàmbali ko danaa ko continuer di ko wax gouvernement bii àttanu di école bi mënula àttan daara dañ leen a bëgg a nax ba ngeen bàyyi seen yalwaan gi ngeen di dundee ñu xëy ñaari weer ne fayatuñ ña doon jàngale daara yi tëj ñu jël xale yóbbu ci école bi loolu rekk mooy seen politique du leneen du leneen su ko defee loolu bi mu amee boobaak léegi ci ngeen gis musiba yi tegaloo ci réew mi lakk yi tegaloo Medina Gunaas gi ñu évacué woon xale yi taalibe yi am benn miir bu fa daanu juróom-ñeent xale miir ba daanu ci seen kaw yàlla def sutura kenn deewu ci loolu yëpp gannaaw bi la. ak yeneen yi xew yëpp ngeen koy dégg ci réew mi loolu dañoo laal laalaakee te bu ñu continuer woon delluwunu ginnaaw kontiné di jël sëriñu daara yi di woo ci police yi di tëj di jàpp ay xale taalibe yu yelwaan wa rabbul kaaba ci dangeen dégg musiba gu rëy rëy Sénégal ndax jàmm ji ñuy wax Sénégal di ko ndamoo réew yi ji wër répp muy tàkk Sénégal ne tekk li ko war li ko li ko jur du dara lu dul sëriñu daara yeeg taalibe yi ñoom ñooy yeewu fajar di jàng téere yàlla bi di ñaan ay xale yu tuuti yeewu di jàng téere yàlla bi di ñaan waaye tubaab bi léegi dugal na ci bom bopp intellectuel yi ku gis taalibe saaga ko yow yàlla dafa waxoon yenent bi ne ko yalwaankat bul ko gëdd léeg nga dégg ustaat bu ne waaw diine yalwaan amu ci waxul benn dëgg du dëgg ku waxul dëgg dañ naan la waxoo dëgg loolu ku ko wax alquraan nga weddi yàlla moo na yenent bi wa ama saaila fala tanhar yow yenent yàlla muhammad bu ñëwee am kuy yalwaan waxuma la nga sarax ko jànni ko wala nang yàlla def ne ko bul ko gëdd bul ko wan sax ñàkk respect ki ñëw di yalwaan yow daal amoon loo ko jox jox ko mu dem amoo loo ko jox nga wax ko kàddu yi neex baal ma ba beneen yoon waaye amoo droit taalibe bi ñëw di yalwaan nga koy gëdd boo ko defee def nga lu yàlla tere tere woon ko ku la gën muy rasulullahi yow jullit bi gëmul sa diine nag xamoo sa diine jël sa yenn xalaat yi di ko dugal ci diine yàlla ji yow yaay jël taalibe di ko jànni di ko gëdd ak kuy yalwaan topp leen fële te yàlla daf ko tere woon rasulullahi daf ko ko tere woon yooyu nag fekk mi ngi continuer am insécurité bi du jeex ci dëkk bi waaye alhamdulilah bi nga xamee ne ñi ngi jël dogal tàmbali ubbi buntu waxtaan concertation di am alhamdulilah buntu ubbeeku na doonte concertation yi ci sa daara li ma ci wax léegi rek ni ñu ko bëgg sen jëlee seen programme bi ñu bëgg indi né bobu la doxal pour moderniser dara andaguma ci wa andaguma ci ta andaguma ci nekul man man mi mané ne ci en tant que Makhtar sar mu tok di wax waye bo jëlone sëriñu daara yu maga mag Sénégal nga dem laaj leen moderniser daara ñu ne la dédé ndax ñi joggé ci école bi ñoo défar daara mënoo joggé université ñoo ne yaay organiser daara mënoko bàyyil ñi jàng daara jóge ci daara ñu xool naka la ñuy doxalee pour moderniser daara pour pour doxal daara ba ñi ci bokkul ñu seppi seen loxo ba mu set loolu ñu jóge ci daaraa ko man ñu jóge université bi mënuñ ko xamuñ ko tey Maxtaar Sarr bu demoon université bëgg koo organiser du dox ndax xamul la fay dox xamul réalité yi jàngewu fa jógewu fa naka laa ko mën a organiser daara tamit noonu la yow yàlwaa ni woo jëluñ aliwa teg ci sa lupp fanaanoo ci ay saako solo yére yu tilim semaine nga ne yaa bëgg organise ñooñu xamoo noo koy organise xamoo noo koy organiser yalwaan ci diine ji la bokk ponkal mu pattu làggut la lislaam bañ muy yalwaan war a dem liggéey hmm? wa fii amwaalikum xaqun li saaili wal mahrum suratu zaariyaat hmm? yàlla mu ne am na ñoo xam ne nii wa bil asxaari hum yastaghfiruun ca njël la ñuy yeew di jéggalu yàlla seen alal ji àq la ci am ñi nga xam ne dañuy yalwaan ak ñi ñu xañ amuñu dara am nañ àq ngir ña yalwaan ñu jox leen ña ñu xañ amuñu ñu jox leen ci. nga ne yalwaan amul ci diine di woote woo islaamu la di wax lu dul dégg ci diine yàlla ci dañ lay dénoncer la waxo benn dëgg ku ngeen dégg mu ne yalwaan amul ci diine ne ko waxo dëgg. léeg nga dégg keroog maa ngi dégg benn émission kuñ naan docteur la fii ci réew mi ku mag ñu invité ko benn émission mu naan waaw wa ama saa yi la mu ne laaj ak yalwaan du benn alxuraan laaj la wax mais lu leen wutale xam nga loolu mooy waxu tappale jàpp nga ne yow Sénégal yëpp yow daal kenn jàngu fi yow yaa mën a leeral mbir yi ba mu leer wa ama saa ila laaj ak yalwaan lu leen wutale jox ma ak sarax ma xanaa ki ñëw ne la jox ma sax ak ki ñëw ne la ngir yàlla ki ne ngir yàlla moo ëpp doole ki ne la jox ma noonu ki ne la jox ma teg si diine yi boo ci delloo du jeex yow mën a référence woo ci wàllu googu yooyu nag buñ ko jëlee neenal ko di attaquer daara di dal ci ndongo daara yi ñu mer ñaanu ku mer yàlla du ko delloo su ko defee bu nu meree nag insécurité bi ñuy dund mën naa gën a yaatu te ñaanuñ ko ci réew mi yàlla yàlla delloo si dal ci réew mi rasulullah yi dafa wax ni pour wàllu rek insécurité bi am euh, waxoon na ko bu yàgg ne bu àdduna bi bëgg a tukki da fay bari sahaba yi ne ko lan moy xërëj moy moy xex bu bari bi ak ray gu bari gi so adna bi bëgg tukki xex bi dafa bari so adna bi bëgg tukki tamit ray gi dafa bari waaw waral nit di mm, tok ba nit liggey ba wacc yor alalam nga dogaale ko nangu alalam lo rek dafa doyon waye nangu alalu nit ki ba nopi boole ci ray ko ñaari musibe lay yu dajalo te kenn ñemeetu la jënd portable bu seer yor ko ci mbedd Dakar yi ak ci biir Sénégal gépp kenn ñemeetu la yor saag bu seer yor ko ci biir Ndakaaru jigéen ñey takk or kenn ñemeetu cee takk or di ko doxee ci mbedd la ngir la mbedd yi ngir lan insécurité bi waaw insécurité bi yenn heure kenn ñemeetu la génn jaar ci yenn mbedd yi ngir lan insécurité bi moom daal ponkal yu entraîné am seen doole taxaw ci mbedd di kare gens dorogewu tux yàmba naan sàngara loolu mooy seen métier bu ñu amul yàmba bu nu tux amuñ dorog bu nu fóon buñ doon rey nit sax ngir jënd yàmba wala dorog danañ ko def te yeneen bi wax ne rey bàkkan àdduna beeg li fi nekk yépp nga faagaagal ko Sénégal nga màbb ko Mali nga màbb ko Mauritanie nga màbb Gambie nga toj Guinée Bissau nga toj Côte d'Ivoire nga rajaxe Maroc nga toj Tunisie nga toj Caire nga toj fépp fépp ci àdduna bi école yeeg hôpital yeeg palais yeeg assemblée yeeg jàkka yeeg jumaa yeeg daara yeeg lépp lu nekk ci kaw suuf nga toj ko Afrique nga rajaxe ko yépp Europe Asie Amérique fépp nga rajaxe ko toj lépp loolu li muy garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw rasulullahi nee na rey benn bakkanu jullit moo ko gën a xaram bara ibnul aazib radiallahu moo ko nettali ni anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaala qaala la zawaalu dunya ahwanu ala allahi min qatli muminin bi gayri Moustapha nee na àdduna bi nga jële li fi ne yëpp tukkal àdduna la dawalu duniyaa waat naa ne dañu àdduna bi nit jële ko fi rajaxe li fi nekk yëpp ëhwanu moo gën a doyadi alallaahi fa yàlla min qatli muminin ci rey benn bakkan bi gayri xaqin ci lu dul dëgg lu dul àq te mooy mu rey bakkan ñu rey ko ku lislaam rey luwul daal nga rey ko tukkal àdduna bee ko gën a woyof ibnu moo génnee xadis boobu noonu le ci xadis 2619 la ko génnee xadis bi am garaatu wér ci beneen yoon wu dul yoonu ibnu maaja boobu kon gis nga danger bi nekk ci euh, ray bakkan te bu ñuy wax insécurité li ci gën a fort mooy dem ba ray gi bari agression bi bari waaw jël alal euh, ray laataa ngay rey ngay tëdde léeg nga dégg lu ñaaw mag mu am juróom fukki at di jigéen nga ñëw yegg ci kawam jël lam yoroon ba noppir jamate ko ba mu dee sedd dem ndax ñiy def loolu ay nit lañ mbokk yi ndax koo xam ne leeru laa ilaha illa mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dund ci sa xol ndax kooku da nga fekk mag mu am juróom fukkiyaat di sa moroomu ndey di sa moroomu maam nga rey ko laataa nga koy rey nga jamati laataa loolu jël nga alalam laataa loolu tëdd nga tëddee nga ko loolu ndax ku leeru laa ilaha illallah di dundu ci xolam dana ko def waaye ku sa xol gumba loolu neex def innaha la taamal la bu sooru walakin taama alqulubu allati fi suduuri sunu borom nee na gët yi di gis du mooy gumba gumba xol a koy def ku xolam gumba lu ko neex def gumba xol koy def ku gumba lu ko neex def waaye ku ànd ak yëg-yëg defe naa ñaaw téef boobu waroo ko toggoo ci kaw suuf te boo gisee lislaam ne ku rey nañ la rey ku rey dee ñu teg ni mu fooree yàlla ni mu ci sonnee ci nit ba nit di nit ku rey nit doo nekkati nit nit ak ni mu fooree ba yàlla noppi ci nit ba nit di nit ku rey nit doo nekk ci nit ku rey nit du nekk ci nit nit du nekk ci nit gannaaw nekkatul nit nag ku rey nit mën na reyaat nit ndax virus feebar bu bon moo ko dugg virus boobu amul lu ko mën a détecter amul lu ko mën a analyser ba mu deñ rey rek ray rek ray rek ray rek boo demee ci Ibriz benn téere la boo demee ci Ibriz benn téere la Abdul Aziz Dabbagh lañ fa dajale ay nettaleem ak jëfam Ibnul Mubarak taalibeem boobu dajale ko dajale ko Abdul Aziz Dabbagh boobu moom la ñu tuddee maam Cheikhul Hadj Abdul Aziz Dabbagh mu maam Seydal Hadj Malick radiyallahu anhum ajmain borom Ibris day wax ci téere ba ne rey bakkan lu dangereux la rey nit lu dangereux la ndax ne na nit ni yàlla sonnee ci moom ci bind gim ko bind waxin la yàlla du sonn waxin la waaye yàlla du sonn yàlla bind gi mu bind doomu aadama li mu daj ci bind ko ba mu yegg moo tax bàyyiwu ko noonu daf ko booleeg trois cent soixante soixante six malaayika malaayika ñoo topp doomu aadama bi mu ne nit ki bu juumee ba rey nit dof dof lu ba rey nit hmm? mooy rey nit te tey ko da nga ñëw nit ku nekk biir këram nga tëb dugg ci biir këram wala nga dajji buntam dugg ci biir këram dajji buntu néegam dugg fekk ko ci néegam jël ngànnaay jubale ko ko palpier ko palpe ko palpe ko lu nekkoon ci euh, néegam mu dencoon ko nga jël ko booy génn ne ko tuyyi bal rey wala booy génn nga jamate ko ba mu dee nga génn dem ah yow mi def loolu noonu le na nga bàyyi xel ne 366 malaayka ya toppoon nit kooku yépp dañuy ëlbatiku topp la lan lañ lay ñaanal móolu dañ lay móolu di la ñaanal merum yàlla këpp ci sa kaw di la ñaanal musiba këpp ci sa kaw ndax yow yaa leen tàqale ak jëmm ji ñu toppoon àndoon ak moom nee na noonu la ñuy def duñu ko ba ñu ko baax di la ñaanal boo yeewoo ñu lay ñaanal booy sëlmu ñu lay ñaanal boo boo boo boo xëyee ne yaa ngi dem di defi dara ñu lay ñaanal booy lekk ñu lay ñaanal booy naan ñu lay ñaanal loo def ñu lay ñaanal njéppitam yàlla merum yàlla mbugalum yàlla malaaka yi di la ko ñaanal yow mi rey bakkan bi duñ ko bàyyi ba keroog ngay dee waxtu woo dee lan mooy continuer nekk seen mission mooy di waxtaanee jëf ju bon ji nga def yamu ca de mune amana yenen na yeneen juróom-ñaari malaayka yu topp doomu adama yu bokkul ak 366 malaika yele nit ki bu raye nit mala jurom ñaari malaika ñom lan moy seen liggey dañuy dem ci say dossier ba nga mesurer ba keroog ngay ray lo loo son def ci lu bax ñu toxale ci sa téré jëf di yobbu ci téré ki nga ray di toxal di yobbu di toxal di yobbu ba li nga defon ci lu bax jeex tak ñu jël lepp def ko ci téré ka nga ray ëlbatiku ki nga rey lu mu defoon ci lu bon ñu koy toxal ci téeréem di ko def ci say téere ba mu jeex malaaka yi loolu rek moom moo nekk seen liggéey mbokk yi xoolal lu garaaw loolu moo tax yonent bi ni yajiu almaqtulu axidan qaatilahu wa awdaajahu tashkubu damma inda di liddati fa yaqulu ya rabbi sal hada fi ma qatalani fa yaqulu allahu azza wa li takunu liddata fulaan Euh, gis nga yeneen bi nee na ëllëg yowmal xiyaamati Abdullah ibn Mas'ud te ko nettali mu ne yeneen bi nee ëllëg yowmal xiyaamati ku nu rey dana taxaw ci kanamu sunu borom indaale ka ko rey indaale ka ko rey siditu baat yi dara tang ciy sotti taxaw ca boroom tedd ga muy sunu borom ne ko yaa bi yow sama boroom sallaajal haada kii fii ma qatalani ci lan la ma rayee lu tax mu ray ma fa yaqulu daal di wax allahu azza wa jalla yàlla ne fii ma qataltahu kii lu taxoon nga ray ko ci àdduna qaala mu ne qataltuhu rayoon naa ko li takuuna ngir na nekk al iddatu tedd nga li fulaani ñeel diw qiila yàlla ne ko hiya lillah tedd nga yàlla rek ko moom dama ko rayoon ngir ne dama amoon ndaw suma bëgg ndaw si am lu ma laaj amu ko ma ne nag il faut naa ko rey ngir neexalee ko ndaw sax yàlla ne ko xol sedd ba nga bëggaloon ndaw sa ngir tedd nga man rek maa yeyoo am tedd nga gudul dakk waaw kooku safara lay jëm safara lay jëm waxaat na ko feneen tabaraani ko nettali law anna ahla samawati walardi walardi nijtamacu ala qatli muslimin la kabbahum allahu jamian ala wujuhihim fi nnaar yeneen bi ne waa asamaan ak suuf yëpp bu nu dajaloo woon kompoloo def benn gang ngir dem attaqué ji benn banque rey gardien ba wala ñu def benn gang ngir dem ci benn quartier toj benn kër rey borom kër ga wala ñu def benn gang dem dugg ci benn bureau rey ña fa nekk jël alal ja wala ñu def benn gang dem ci station rey ka ko ka fa nekkoon guddi ñoom ña def loolu yëpp doonte waa asamaan la woon ak waa suuf yëpp ñoo rey benn jullit bu gëm yàlla ñoom ñëpp yàlla dana leen dugal safaraw jahannama allahu akbar mbokk yi nanu nanu moytandiku insécurité bi bari na ray gi bari na waaye jullit kenn du tuur deretam ci lu dul dëgg yenent bi dafa waxoon ni sunu boroom tabaraka wa taala digal na ma ma xeex nit ñi ba keroog ñuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waxtu wu ñu waxee ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seen alal ñoŋ na seen deret ñoŋ na lu dul ci àqu lislaam kenn waratul a jullit bu wax ashadu an laa ilaaha illallah kenn waratul a tuur deretam waruñ koo jam waruñ koo dóor deretam di tuuru hmm? kenn waratul a yàq daram jullit bu wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kenn waratul a jël alalam ci lu dul dëgg islaam dafay protéger yooyu ñetti yooyu muy der dërëm deret ku dugg ci lislaam lislaam protéger la ko ku dugg ci lislaam rek lislaam protégé la ko kenn waru koo laal kenn waru ko jege ci lu dul yàlla gërëm hmm? waaye léegi li xew ci jël alalu nit ñi dafa doy waar xam nga légitime de défense bi tubaab di wax yenent bee ko njëkk a jàngale sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu ko jàngalee nan mooy genn waaye dafa ñëw fekk yeneent bi toog mu ne ko waaw jenn waay su ñëwoon fekk sama alal mu bëgg koo jël nu may def yonent bi ne bul ko ko jox mu ne ko ah, bu xeex ak man nag yonent bi ne ko nga xeex moom légitime bi dugg yonent bi ne waaw su ma ndaw si ne ko waa ji ne ko waaw su ma xeex moom mu ray ma nag yonent bi ne ko ah, bu la rayee nga dem àjjana waaw mu ne su ma ko njëkkee rey nag moom mi bëggoon jël sama alal yonent bi ne ko mu dem safara gis nga l'islam ni mu bañee violence bañ ñëw fekk nit ki toog moom alalam nga koy force ngir jël ko ku dem di bëgg a rey wala ngay bëgg a jël alalu nit ci force mu xeex ak yow ba rey la safara nga jëm boo ko reyee yow safara nga jëm moom mu jëm àjjana moo tax alquranul karim sunu borom mawlaana tabaraka wa taala ne mbir yi lii tax insécurité bi jeex dal am ci dëkk bi mooy ngeen def lii audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmani rahim إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم سورة المائدة يلا نينا إنما جزاء الذين يحاربون الله pen bi ma sécurité am mooy lan ñi jug di xeex ak yàlla di xeex ak yeneen ci bi di dox ci kaw suuf di yàq wa yasawna fi lardi fasaada ñii geer ak yàlla di geer ak yonent bi di dox ci kaw suuf di yàq lan mooy seen àtte ban pen lañ war a indi ban loi lañ war a voter pour sécurité am pour nit ñi am jàmm ku tëdd nelaw ku tëdd ba diggu guddi nga ne sama buntu kër tëjuma ko doo tiit hmm? ndax kenn du jël sa alal kenn du dugg ci sa biir kër ndax sécurité am na lan mooy tax loolu am sunu borom nee na ñii def lu mel nii di wër ci suuf si di yàq di rey nit ñi di jël seen alal ñii ñuy tëdde ñii ñuy tëkku ñii ñuy xupp li tax mu dëñ yàlla mu ne mooy kuy def loolu ñu jàpp ko an yuqattalu mooy ñu ne tëq ren di kañ kay def loolu bañ jàpp ko aw yu sallabu wala ñu pendre leen jël leen daaj leen ci kaw hmm? aw tuqattaa aydiyahum wa arjulahum wala ñu dogate seeni tànk ak seeni loxo min xilaafin ci jalawle dagg loxo ndeyjoor bi dagg tànk càmmoñ bi walla ñu dagg tànk càmmoñ dagg tànk ndeyjoor bi aw yun faw wala ñu daqees leen minal lardi ci kaw suuf mooy réew ma nu nekk ñu génn leen réew ma da ngeen naan exiler leen ñu génn réew ma yàlla mu ne daalik pen boobu noonu le loi boobu noonu le article boobu noonu le ma ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf ba tax sécurité amul ñoo indi insécurité bi yàlla mu ne daalika pen boobu ma indi lahum ñeel na leen yu muy gàcce ak toroxtaange fi duniya ci àdduna loolu mooy toroxal biñ leen di toroxal ci àdduna waaye walahum ñeel na leen bu nu tuubul bàyyi la ñuy def di xupp nit ñi di leen tiital di tuur seen deret ñii ñuy rey ñii ñuy jël seen alal wala hum buñ ko bawul ba dee ñeel na leen fil laaxirati ci àllaaxira adaabun mbugal azimun mu tar yàlla mu ne illa alladina ba mu des ñi nga xam ne taabu danoo tuub min qabli an taqdiru njëkk ñuy jekku di jàpp alayhim ci ñoom faalamu xam leen ni inna laa buur yàlla soxorut xafuurun ku bëri njëggal la rahimun ku bëri yërmande la ku defoon lii xam ne lii du métier lii du lu baax di jël alalu nit ñi di tuur seen deret ah di xupp di jël ay xale yu jigéen di tëddee di dogaale di dugal ci ay taax yu yeggul tëdd jigéen ba noppi ne ko téq rendi mag mu am juróom fukki at nga jamate ko àgg ci kawam lam yoroon nga jël ko rendi boroom kër gu xëy fajar teel dem Sàndaga di lijjanti di dugg di génn di yanu di dajale ba ngoon jot mu wàcc ak coonam gëmmentu oto ba mu dugg sax ndeysaan ndey nelaw wàcc war a dox jëm këram tourné rek nga dóor ko kuur mu tëdd wala nga sànni ko mool mu tëdd nga palpe ko lu nekkoon ci poosam portable xaalisam nga jël loolu bu fekkoon ca ngay yem ñu ne baax na waaye nga mën a jël paaka jamate ko mu dee yàlla mu ne lii baleen ko balaa ngeen a dee man ku bëri yërmande laa bëgguma ngeen am problème waaye lii ku ci dee am problème allahu lii ku ci dee am problème ndeysaan sunu borom tabaaraka wa taala borom xam-xam yi nag ne ñi nga xam ne ñooy geer ak yàlla ci kaw suuf ba yeyoo ñu teg pen bii ci seen kaw wuute am na ci am na ñenn ñu ne humu alladina yaqta'uuna tariqa wa yaxmaluuna silaaha am na ñu ni ñii yàlla wax ne nañ teg pen bii ci seen kaw ray leen wala ñu pendre leen wala ñu dogate seeni loxo ak seeni tànk ci jalawle wala ñu exiger exiler leen génn leen réew ma yàlla mu ne ñu am nañu ñu ne ñooñu mooy ñi dogaale yoon di yor ay arme ñu nekk ci yoon yi di dogaale di yor ay arme mooy agresseurs yi rek moom la yàlla di tudd ci laay jooju noonu la ñi wax ne ñooñu mooy agresseurs yi mooy imam Lawza'i imaamu Malik imam Laws ibn Sa'd imaamu Shafi'i ñeent boroom xam-xam yooyu noonu yëpp ànd nañ ne yàlla ki muy wax ci laay jooju ñi muy waxal mooy agresseurs yi dogale nit ñi ci yoon yi yor ay arme di leen jam Abdullah ibn Abbas nee na agresseur atteem lii la laaya ji loolu lay firi ñu ne ko lan la mu ne bu fekkee nit ki ba muy agressé nit ki daf ko rey jël alalam kooku dañoo war a boole ci moom ñaari àtte yi mooy rey ko ak pendre ko donte pendre bi am na yeneen borom xam-xam yu ne loolu baat boobu di baatu pendre dafa follee ko ci laaya ji waaye Abdullah ibn Abbas ne leen déedéet ku rey ba noppi jël alal buñ ko jàppee dañ koy rey ba noppi pàndur ko wala ñu pàndur ko soo koo ray ñëpp xool ñëpp téen ñëpp gis ñu dajale journaliste yëpp presque bépp rajo yëpp télé yëpp journaux yëpp stade Léopold Sédar Senghor ñu ne ko mën na dem stade taxawal toogal sa kër danañ ko def direct ci rajo yeeg télé yi ngeen seetaan dafa am kenn ku ñu war a rey tey allahu akbar ñu jël ko pàndur ko ñu ne agresseur la woon boo xam ne dafa jël alalu nit ba noppi rey ko ñu jël ko pendre ko daaj ci kaw ñëpp di seen ñu jël jaas yi dawale ko ci baat bi bopp bi dal yi fële ñu ne allahu akbar ñëpp kabar ndeysaan ñi seen yaram di daw jooy ndeysaan sàcc bu jugoon di waajeer a jàpp nit ray ko jël alalam soo gisee loolu noonu doo ko def su ko defee sécurité am yàlla soo xorut Cheikhul Hadji Abdoul Aziz daf daan wax ni mënuñoo ëpp yàlla yërmande hmm? yàlla def ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulul albaab yàlla mu ne liy tax ngeen dund dund gu neex du daara lu tax ngeen di am sécurité du daara lu dul ku rey nañ ko rey ku dagg sàcc nañ dagg loxoom ku njaalo ñu caw ku xas gor ñu caw ku naan sàngara ñu caw yooyu buñ ko defoon dañuy yëg dund bu neex boo xam ne nii kenn mën la ko wax waaye suñ njiitu réew yi ay tàppet lanu ay buqat lanu France rek lañ ragal européen yi rek lañ ragal tuba bi rek lañ ragal tay njiitu réew mi bu Islam. ne nañ taxawal l'islam suba suba occident bi dajalo réunion di seet naka dalai ñuy Senegal, ci kaw Sénégal naka Nak ñuy daanalee état bi ndax dañ dañoo bëgg atté wol l'islam ba tax légui buñ ko tuddé julli ñëpp tiit waaye moo tax ñu dal di ñu dal Fek jëluñ atté yalla bi tek fek jëluñ jaasi ji tek fiñ jëlul karwaas bi tek réew mi li nuy jambat ci bari gi du waaye bu ñu rayoon nit wane ko ñëpp di seetaat léegi tey dox dox ci mbedd ñu dogaale la jamate la jeex Abdullah ibn Abbas mu ne ki nga xam ne moo jël bu jëlee boole koog rey dañ koy rey ba noppi pendre ko wala ñu pendre ko rey ko bu rayee te jëlu nañ ko rey kenn du ko pendre su jëlee alal te reyu nañ dagg loxoom ak tànkam hmm? bu fekkee dafa nekk ci yoon yi di xuppaate ci yoon yi di xuppaate kooku nañ ko génne réew ma loolu imaamu lawdan yi wax na ko imaam qataada yi tamit wax na ko imaamu shafii tamit wax na ko su ko defee insécurité bi bari na waaye li tax mu jóge fii dara rawu ci ñu jël àtte yàlla bi da teg ci sunu kanam yi yeneen bi daf ni ubaadatu bnu saamit moo ko nettali aqimu xuduud allahi fi alqaribi walbaidi wala taxu wala taxuz wala taxuzkum fi llaahi lawmata laaimin yenent ne aqiimu na ngeen taxawal xuduudallaahi pen bi yàlla indi na ngeen ko teg fil qaribi ci kaw ku jege wal baidi ak ku sori wala taxuzkum bu mu leen téye ngeen bañ a jël pen boobu noon teg ko ci kaw ku jege ku sori fillaahi ci yàlla lawmata laaimin yeddeelug aji yedd ku leen di yedd waaw nit dafa am ak nga deg ñaan dañuy kaas duru ak droit de l'homme l'homme ray l'homme ñu ne ken du ray lom mi ray l'homme wa xana l'homme mi nu ray da dul l'homme amul droit ya ay caaxaan na ay droit de l'homme droit de l'homme moy défendre ku roy nit ku ray nit ñu ne ken du la ray lan motax duñ la ray da nga am droit legi ki ñu ray mom xana amul droit ki ñu ray mom xana amul mbok ki ñu ray mom xana nekkuloon nit xana xar la legi ku nu ray ngay xeeb ku ko ray di nit léegi daal moom kenn du nekk lom nga xam ne nii yow la yaa kuy dund rek kay lom kan moo ko xañ dundam kooku di doxi soxlaam ñu jël ko jàpp tëj ci kaso bi un an deux ans cinq ans mu dem ci kaso bi di lekk ceebu réew mi di naan ndoxu réew mi di taal courant réew mi ba noppi rey mu nekk ci biir bàmmeel groupe A bu ñu amee dëj groupe B nañ am dëj loolu mooy tax stabil ci am ci kaw suuf gis nga mbir yi ni mu leere gis nga islaam at bi mu indi li mu leere dafa bëgg famille famille kiris euh, bu nu amee naqar ci seen doom famille karase ko rey karay seen doom ci famille karas nañ ko rey famille kiris di dëj famille karas di dëj su ko defee naqar bi woyof walla yàlla indi kon dëkk bi insécurité bi mi ngi fi du jeex ci banlieue bi ci jakaar ba ci ville bi mbedd yu lëndëm yi ak yeneen ak yeneen cause yi nag bari na bari na bari na séddalikoo na bokk na ci cause bi ci gën a rëy insécurité bi rek mooy làmb ji di am làmb ji li yokk insécurité Sénégal làmb ji ci la bokk ponkal yi entraîné maa ngi dégg léegi ñu naan ay 700 800 licences yu ñu joxe mbër ndaw yi entraîné te li ci ba bëri matuñu juróomi téeméer ci at mi ponkal mu entraîné na juróomi at amul combat bu mën a génnee 1 million. mais kooku bu xiifee dajeeg ku mën a këf portable am jaay ko ngir lekk mën a entraîné ji daf koy def. ñu bari ñuy agressé bëri yii di entraîné bokk nañ ci. moo tax wax naa tey ci benn télé ma ne leen cause bi ma gis wala solution bi ma gis bokk na ci pour sécurité bi am mooy ñu éliminer làmb jeeg nawetaan. maa ngi koy wax léegi ci làmp faal ci suba bi ñu may invité man leen loolu laa gis ne mooy tax sécurité am mooy làmb ji ñu éliminer ko nawetaan bi tamit ñu éliminer ko waaye fekk làmb jaa fi nawetaan baa ngi fi sécurité bi du mën a yomb. ndax waxtu làmb jeexee ñaata bakkanay rot bu làmb jeexee da ngay gis ay gang yoo xam ne dañuy topp mbedd yi oto bu ñu romb rajaxe ku ñu romb nga yor portable ñu këf ko ku ñu romb ngay jaay ñu jël sam njaay jël ñii dóor ñii nu jam loolu noonu état bi mi ngi koy gis bu jëloon dogal tere làmb ñu coow ko ñett fan sécurité am la am ca làmb ja tamit mooy am ci nawetaan bi bu nawetaan bi jeexee moom tamit lu mel noonu rek am su ko defee seen émission jotaayu lislaam euh, fii la koy yemale tey ba weneen yoon incha allah di sant mbokk yëpp di leen gërëm seen jotaayu lislaam nii lay doxee fii lay doxee ci lii lay dox indi mbir yi teg ci taabal ji waxtaane ko lépp di tegu ci siraatal mustaqim ci njàngaleem rasulullahi mu leer njàngaleem sunu borom tabarak wa mu leer ak mag ñu baax ñi yàlla yàlla may ñu dégg gu ànd ak topp seen mbokk Oustaz maxtar Sarr moo àndoon ak yéen ci jataay bi di leen balu àq di sàkku ci yéen ñaan di ñaan sunu borom mawlaana tabaraka wa mu defal nu jàmm ak wér ak sutura ak mucc ak waa wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursalin والحمد لله رب العالمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حق حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر أذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين